asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen fu ngeen mën a ne rek di leen ñaanal jàmm bu baax a baax tey nag dañoo seet si koo xam ne defe naa ne Sénégal xam nañ ko muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy fas ne waxtaan ak moom ci li nga xam ne nii ah moom mooy làmb parce que li tax mooy yàlla moo dogal ku ne xam ko digganteem ak Modou Lo Modou Lo le roi ñu jëm ci bis a mag seen digganteeg Ama Balde te fan yële fekkoon naa ko parcelle mu am lu mu waxoon mu joxoon tey jii lañ ci ñëw fas yéene waxtaan ak moom mais tamit dañ waxtaan ak moom ci loo xam ne xëy na sax ci biir làmbal parce que des fois ñu gis mbër yor pafton yor ngeer yor xobu daqaar yooyu waaye yooyu yëpp moom defe naa am na lu mu ci war a wax ak lu ci war a mën a parce que ah macha allah tamit yaakaar naa ne doomu xam na garab yooyu bu baax a baax sëriñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhaanaka laa xelma lana ilaa ma xalamtana innaka anta alimul hakim mbokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel waxtu wi kenn ku ne fa nga toog jox naa la sama loxo xol di la nuyu di la siyaara di la nuyoo nuyoo bi gën a sakkan na gën a yell muy baatub asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. macha allah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. man damay ñëw ci sa diggante ak Modou Lo euh, relation bi ak komba bi ngeen jëm. ni mu toll ba amateur yi dégg nga ñëpp maanaam koo wax rek naan la Ama di Modou Lô Ama Baldé Modou Lô sa relation ak Modou ba ma ko doon tënkal. waaw bu nu ko doon tënk sëriñ Babacar ci tënkin wu gàtt lañ koy tënk yàlla mi nga xam ne mooy dogal la ko neex moo dogal loolu fa maa shaa kaana wa maa lam borom bi boole ñu ci anam yu baree bari damay faral di wax ne nit ki gën a neex a ànd ak mooy nit ki xam gëddëb doomu aadama nit ki gën a neex àndak ci nit ki mooy nit ki xam cër bi yàlla jox ka mi ànd ak nag borom bi boole ñu ci boole gim ñu boole mu xam boobu cër am ngor lool xam nitam man nitam loolu boole ñu bim déggagul roi de arènes ba bim koy dégg borom bi it boole ñu cay ànd ba yàlla defal ko ca tawféex muy nit ku baax nu koy ñaanal it yàlla gën koo kàttanal te gën koo dimbale te gën koo defalum sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni la ko xam ne jamono bi nu dëkk parcelle ñoo bokkoon dëkk parcelle ba bi borom bi di def may génnee parcelle di dëkk fii ci Mamel ñu nekkoon fa muy nit koo xam ne baax na la tax ma gën koo fonk man dafa am fu may natt nit bëgg na ay way juróom fonk ay way juróom fonk ma man Serigne Cissé mu baaba kër si fu ma fekk jox ma sama wàccuwaay ci anam mooy waral lu mu nekk rek ñu nekk ci ànd ak moom sëñ Babacar. am na solo léegi ngeen dëgmal bis bu rëy seen diggante ak Ama Baldé coow li bëri ci mu mel ni nit ñi keroog def naa sa benn micro trottoir am ñoo xam ne nañ ma Ama Baldé Modou Lô ku leen ko nar a def ko wiikloo maanaam bu ko regee nañ dajji bunt yi dugg ci biir arène bi ndax ñoom loolu faaw ñu tiim ko seetaan ko euh, tolluwaayu combat boobu ak fi mu yegg ak adversaire bi ngeen ko seqal muy Ama muy xale boo xam ne maanaam macha allah ku am objectif la ku gëm boppam la muy Ama Baldé ci liñ Sénégalais yi gis ci di ko wax. Euh, bu ñu déggee Serigne Cissé di waxtaan ci wàllum làmbu kenn du ne lu tax ndax sunuy preuve ci biir làmbu ci wàllum ñaan yàlla mi nga xam ne si la borom bi dogalee ñu cay wax ba ci wàllum a ki lépp diggante moo doog amaa lu àdduna soxla la te damay faral di wax ne àdduna boo fi nekkee la nit ña bëgg mu leen di béggal boo leen ko mënee defal defal leen ko boo ko mënul nag téyel sa làmmañ ci façon boobu ñu wax ne lañ koy tëggee kooka aw ma ci xam-xam du ma ca mën a sori waaye la mën a am jeunesse bi daal lañu bëgg nañ leen ko defal te ngontal moo doog amaa ku fexe ba nettalil la ko xaw ma da nekk ci biir suuf ñu la koy nettalil xaw ma da ngay ñàkk a dem stade xaw ma sa koñ courant daf fay coupé waaye yii daal kum ci daal ba nga fas kee ñu nettali la ko danga nga lu rëy. loo xam ne lu neexit lay doon te ca biir neex googa danga nga gisit lu gaawit nag gis lu gaaw lu gaawit nag ci barki sëñ Babacar foofu laa yem nit ñi lu gaaw li ci kan lay jóge ak ku koy gaawal danga nga gisit lu gaaw sëñ Babacar xam nga lool sax li tax ma la koy ñamal dafa am lu ma waxoon ak sénégalais yi te sama sëriñ bi sëriñ Babacar si nee na asgor bu xasee ba wax moomatut boppam man maa la ko waxoon dégg naa lenn ci ñi nga xam ne ñoo ngi wax waaye man samay wax réew mi xam nañu ko miin nañu ko ci man it nag waaye loolee sëñ Babacar yàlla bari na sutura waaye li ma la wax teg fa sa baaraam te xam ne loola moom luy am lay doon. lu gaaw lay doon. lu gaaw lay doon. amaade ku gaaw la la gaa yi wax. waaw gaaw na gaaw na lool waaye yàlla bari na sutura sëñ Babacar ndax mbir moo xam ne li tax. yenn wax yi mën aguma ko ci yaatalagum mooy ne comme fan yëpp maa ngi dégg mbër yi ñu ngi génn di dox ñaxtu ci conférence de presse yi dina Macky Sall na leen dimbale ñu ubbi stade mbër yi bëree ji ñi jot avance métti na ci ñoom ñi joxe métti na ci ñoom kon loola dama ciy sànniwaale sama kàddu ndax ci réew mi laa bokk kon président boo njabootee ay nit nga dimbale ñii tëj ñii day xaw a métti ci sa côté kon président na leen dimbale gestu leen ci li nu yaakaar ngir teral ca seeni i wayjur mu jox leen ci ndigal ñu doxal waaw. am na solo kon Ama Mour daal moom foofu nga ci bëgg a yem rek. waaw foofu laa ci tegagum sama kàddu ndax combat bi li ma ciy gis bari na li ma ciy xam bari na ndax man euh, muy muy football muy làmb suur suur par suur laa koy topp suur par suur ba ci mbër dana départ dem euh, euh, nu comme woote yooyu ñu leen woote ñuy daje mbër dem fa demaale victoire buy ñëpp si ñàkk victoire. woote yan maanaam open press yi wala wala wala face à yi. face à yi mbër dina ci départ di dem sëriñ déy ko na ko yaa ngi toog ci sa victoire mu dem toog ca siis ba bàkkoo loola dem toog ca siis ba buy ñëpp si du indiwaale victoire. ñu nangu yëfam. nangu ko complètement. léegi nanguwante la de. loolu mas na koo dal. combat Modou. ñun dañuy xam komba di ci dox di ko siifur combat yi nii lañuy def di turne làmb mën nga ci nekk tey am combat bi ba ci digg géew bi ñàkk lépp sëñ Babacar te la koy ñàkkloo nag du lenn mooy ne dangay xam ne sëñ Babacar bi am na lu mu dëgmal lii nga bëgg pour mu niil sarax ba ngay xam rek boo ko génnee yëfi niil sarax ba ngay génne nga def ko yëfi niil bu dee da nga bëgg a bi it am na noo ko mën a ci wàllu sarax ba bis ba saboté wu maa la wax li man Serigne si Ama Baldé fi mu nekk wala boog seen digganteeg Ama fi mu nekk nii comme ne nga làmb day defante nii jàppal bàyyil fi mu nekk nii fu ngeen toll ci course bi. waaw course bi man damay wax ne sax la ma daan wax gaa yi ndax soxla ba may jaral tëju defe naa ne foofa yeggaguñ fa yeggaguñ fa wallaahi la xasim sëñ Babacar la may tax a tëju wala la may tax a jóg dëgg-dëgg xooli garab yi nga ma limal yëpp benn bu ne la nga ci yittewoo nga jël ko yeggaguñ fa fa matu seede yeggaguñ fa waaye man lu ma tax a jóg ba àdduna xam ne sëriñ si se lii jël na ci ay responsable bi ñi ma xam dëgg danañu tiit barki yontu yàlla Muhammad baadu kon da ngaa wax nit ñi dañoo war war nañoo tiit ndax yow waa xam nga nit ñi war nañoo tiit ngir man ndax man tiitalu ma kenn ndax dama boo gisee samay kàddu sax yu bari sëñ Babacar nangootuma ko mooy ne dafa am fu ma réew mi di xaar waaye nag man ku ne daf maa xam sama diggante ak Moodu. mais waa Pikine est-ce neex na ñoo tiital est-ce que ñun leen yomb na. waa xam nga <laughs> Pikine Pikine. gox la de pikin gox la waaye Pikine xam nañ Serigne Cissé bëgguma na ku ma sànni xeer. bëgguma <laughs> bëgguma. ay boom daal ba waxee rek asimel ñu ngi lay seetaan te ñoom waa Pikine ngi lay dégg. waaw waa Pikine ñu ngi may dégg waaye daal damay ñaan. li may ñaan sëñ Babacar damay ñaanal Modou am jàmm amaa bal damay ñaanal ko jàmm bu ma leen ñaanalee ñoom ñëpp jàmm ñu bàyyi ba mu gën a jege si solo. léegi bu bu loolu loolu leer na léegi damay ñëw ak yow ci maanaam parce que gis mbër yi des fois dugg si ci làmb yor des fois gis mbër yor pafton ngeer ay garabu affaire yooyu daal ay garab yoo xam ne ci àll bi lay jógee. yaa ngi dégg am na sax fii ci Dakar ndax dakaar ku ne xam na ne avant muy mel nii ku ne xam ne ne dëkk la woon boo xam ne comme te ay mamel yi ay ay ay wokaam ay ay village la ñu yoo xam ne garab yooyu na amoon na fa garab yooyu lu muy représenté ci biir làmb xam nga ngeer dafa doon garab goo xam ne mag ñi luñ ko tuddee galaaj gu ñuul lañ ko tuddee nañ ne ngeer tey tey boo doon def chaque jour boo xëyee jan jël bant booba di ko soccoo bantum ngeer loo wax nit ki mu dal ko bu nit ki bëgg a indi loraange ci yow it day dellu ci kawam lii di foftan dafa bari ay mbir foftan gars yi dañ ko jël pour tojtal léegi li nga gis mbër muy dugg ci ñu tànnal ko ci juróom-ñaari doom mu nekk ca tëf tëf ba set yëpp jeex loolu pour tojtal la dégg nga léegoo léeg nga gis mbër moo xam ne taxaw war a dugg si nga gis ñu indi xànc gi di ko ko solal waaw loola ñu ngi bëgg pour maanaam wàllu tojtal lu nekk ci wàllum yaram wa lii di poftan tey lu mel ni wàllu fatu ubbeeku lu ko ci gën a gaaw gisuma ko ci poftan muy xob ba muy doom ba doom ba kese ci nit koo xam ne danga nekk di sëy lu yàgg yàgg nga dem ci poftan taxaw jàkkaarloog poftan gi gëmmu jàng faatiha ñetti peru salaatul faatihi dagg benn poftan sànni ko ci ndox mi noonu boo ko naanee boo mosoon a jur doom jur doom billaahi la si laa ilaaha illaa huwa ñëw nga ci paftu ñëw nga ci ngeer léegi gisaat naa beneen garab boo xam ne beneen euh, limon damay di def wax damay dig mbër yi ñu naan ay ngemb bu ñu def limo ak yooyu limon ci làmb tamit limon dafa bari tey ci tey li am na siru boo koy boole siru yaasin maanaam siru bi 41 yaasin ngay daal di am boo amee 41 yaasin am 41 doomu limon am 41 wa in yakkaadu da bëgg a samp ba nga xam ne kenn du la mën a fël da ngay bind wa in yakkaadu la si na kafaroo li yas la xunaka ba aaya ba jeex moom nag faatiha juróom-ñaari aaya la aaya bu ne da ngay dugal wa in yakkaadu boo paree yaasin nga fas kee ne liggéeylu ci 41 maanaam limon yi danga nga ciy wut 41 euh, boo amee 41 limon am 41 wa in yakkaanu am 41 yaasin bu ko defee nag limon yooyu da ngay def saafara bi nii boo defee saafara bi ni mu tegoo sëñ Babacar nga jël limon yi daggal par benn di ci siibal ndox ma di ko ci siibal da nga bëgg ci àdduna bépp xéewal goo xam ne xew na ci àdduna nga bëgg caa am fexel limon yooyu nga fexe def ko ca boo ko ca defee nag bu dee bët da nga dund ba dee waxay bari rek waaye kenn du man ci yow dara bu dee nit nga koo xam ne mel ni mbër yeeg ñeneen ñu mel ni mbër yi chaque jour làmmañ ak euh, bët nekk ci yéen nga bëgg a samp rek wax ji li muy bari bari daal yow doo ci yëg dara siru bi ma wax la boo ko mënee def fexeel deflu ko 41 wa in yakaadu 41 yaasin 41 doomu limo buñ ko bindee ba pare nga dagg limo bi ndoxu limo bi yëpp nga nal ko ci saafara booba boo ko nalee ca saafara boobu doo fa defaat lenn lu dul limoo ba leen fekk boo xëyee góox ci ñetti góox sangu danga nga ubbeeku da am kaaraangeeg adduna ak alaxira waaye limoo booba nag lu dul loola ci ngem bu googee man xaw ma ci lu dul lii sek bi fii laa koy jaaree man fii te sekkare mag laay wax sax lii may def sax xaj na li nga ci laaja ci xam-xam moo tax ma tas ko nii waaye maa ngi joxe loo xam ne njëriñal njëriñ lu rëy rëy rëy ci loo xam ne ki ko xam ak ki ko dégg ki ko xamul nag xamut ko waaye ki ko xam xam na ne Serigne Cissé joxe ne ñaari mbir yoo xam ne bi ci poftan bi ak bii ci yaasin bi ndax ndax booy seet mu sam bi nga xam ne gën naa màgg ci tam talsami mooy fatiha bu ànd ak wa in yakaadu nga dimbalee ko nit rek loola la ca nekk kenn xamul nu mu toll waxuma la ak ma boole ci 41 yaasin soxla bu mënul faj ci àdduna gisuma ko man Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy am na solo ah loolu leer na nañ kon foofu dama ci yem foofu xam naa ñu dem léegi ñu dem ci jeexal mais balaa ñu dama gis dëkk bi euh, coow li bëri mm-hmm. rawatina ci milieu artistique beeg yu mel ni kii noonu. waa xam nga coow li bari damay faral di wax ni nit ñi kenn ku ne day nangu ab bisam waaye man bëgguma ñaari mag ñuy sànniwante xeer. comme kan ak ah, lu ci mel ni fan yi gis naa coon def benn sorti di wax ay kàddu mu jëm ci Youssou te ñoom fi mu toll ay référence lañ ci réew mi Youssou référence la Thione référence la ñoom am nañ seeni doom yoo xam ne fi mu toll ñu ngi ci seen ginnaaw jamono ba passé nga dégg Sidi Diop Wally Seck te am réew ña fa nekk ñoo koy defar kenn du ñëw defaral leen ko kon ñoom nanu xam ne ay référence lañ ci réew mi ah, wàllu wi ñu nekkoon nag moo baaxoo coow feeg amoo ci coow rek da nga naan nekk guma ci biir waaye nag noonu la baaxoo waaye coow la la muy bari bari nanuy bàyyi xel ne njaboot a ngi ci seen ginnaaw ñu leen fonk ñu leen bëgg sëñ Babacar. mais itam corona bi ñu ne première vague léegi ñu ngi ci deuxième vague muy loo xam ne lu doy doy waar la loolu tamit loo siy wax sénégalais waaw lañ ci wax mooy ne lenn nanu bokk euh, li xalifa généraux yi yëpp diggale nanu bokk di ñaan yàlla ndax balaa lenn rek ci man dara muy ñaan yàlla nangoo ñaan nangoo saraxe ku ko def ci balaa borom bi mën na laa defalum tawféex ku ko ci deful nag balaa ba du fa jóg waaye mën na faa yàgg ay deuxième vague première vague yooyu yëpp nañ ci boole di ñaan rek bu nu ñaanee rek sëñ Babacar yàlla mën naa def tawféex ci bii balaa bi nga xam ne wàcc na ci réew mi 2020 lañ waxoon ba 2021 ah ñu ñaan rek ci 2021 bi nga xam ne dugg nañ ci yàlla na balaa génn ci àdduna yàlla na balaa bi génn ci àdduna ci dawla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, am nañu leen di tooñ wala sax du ma tuddee sax tooñ xëy na mais dañuy wax seen xalaat ñoom ñu jàpp ne yéen ñi nga xam ne comme ñu sax ni ki yow ak yéen ñu mel di génn di euh, maanaam di wax di def di def seen communication te ñoom dañuy jàpp ne am na ci ñoom dañuy jàpp ne des fois la ngeen di wax ak bu ñu ñëwee ñoom lañ fay fekk du doon benn ci wàllum ñaan loolu tamit yow en tant que Serigne Cissé loo ci mën a wax ndax nag bëri na ñoo xam ne actuellement ñu ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma ci lu mel noonu waaw dafa ci am loo xam ne euh, maanaam maanaam kër goo dem da nga fa fekk ñuy jubal fekk ñuy dëngal waaye man mën naxaa cité ci sama bopp ne man Serigne Cissé bu sëriñ Serigne kër ci wàllu ñaan yàlla bi ma nit ñi xam kenn mosul jëflante Serigne Cissé na acam du am te du mos am ndax dinaa la jox gëdd bi ba nga yëg ne jox naa la ko lay sa cër ci biir kër gi dinaa la ko jox dinaa fexe ba sa mboolee mi aajo yoo xam ne am nga ko te bëggu ko Serigne Cissé taxaw ci ba faj ko moo xam ci wàllu dama lay defal xalwa moo xam ci wàllu damay bind jox la moo xam ci li ma borom bi di xamal ci wàllu seet ci ay sarax yoo war a def ma wax la ko nga def ko borom bi di la dimbale sëñ Babacar. ana liiru jaan liiru mu ngi fi sama waa ji moom mu xam nga liiru sama waay la wax nga dëgg fàttalil nga ma ndax nit la koo xam ne bëgg na ma boo waxee mu ne sama sëriñ sama xarit waaye moom it ku baax la dama koy ñaanal borom bi defal ko taw tawféex defal ko jàmm defal ko ndam léegoo-léeg mu ñëw ci gi ma ko liiru mu ne naa ma ne ko nag gis nga yow nag comme que bëggula a ku laal sa rakk ji na nga ba sama waa ji Moodu mu ne ma kon sëñ bi banaa ko kon liiru moom it ndeysaan maçon spécial euh, booy ko ci Serigne Cissé jëm ci moom di ko jaajëfal ndax fu toog ci réew mi ne Serigne Cissé mu baaba Babacar euh, loola nag du man du moom waaye borom bi dogal na loola sunu diggante kon ci li ma lay wax ne man ku ma xas jàpp danaa la jàpp ba réew mi yëg ne jàpp naa la waaye ku ma bàyyi it dinaa la bàyyi ba réew mi yëpp yëg ne bàyyi naa la kon maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko siyaara di ko ñaanal it borom bi defal ko taw féex bu baax a baax a baax sëñ Babacar. nee day anniversaire la 14 looy wax ci anniversaire u liiru. ah anniversaire liiru de xanaa àdduna yëpp koy bokk di ko waajal ndax liiru lebal na ñëpp. parce que noonu naa ko nag yow da ngay dem ci xewi jàmbur yi rek waaye yow mosoo xew la woote nit ñi am na moo tax bi yoon mu ne day jéngu def defu xewam. Ah, kon xam na xañ na lim leble lim leble woon la bëgg ñu fay ko kon loola moom incha allah ñu ñaanal ko ci bi defal ko ci taw féex defal ko ci ndam defal ko ci sutura waaye doxee ci nag yokku ba faw ci barke yonent bi loolu maa ngi ko ciy ñaanal. looy foofu ma jeexal ak yow foofu looy wax waa Equivox équipe bi xam nga ne ay ay Saalum Saalum ko jiite nga groupe la boo xam ne groupe de presse la boo xam ne ah buy yëngutu ci wàllum lamb la taxawal nañu ay combat bi ci des mooy tamit dañuy yëngutu ci la jëm ci wàllum événementiel ak yu mel ay MMA ak yeneen ak yeneen groupe bu mel noonu sa ay sénégalais ubbi ko mais plus particulièrement dëkk Saalum ñu ci nuyul Aline Badara Diouf bu Passy ak El Hadj nekk yëpp loo leen di wax. waa xam nga sëñ Babacar ci anam bii ma waxtaanee doomi Saalum Saalum rek ko ñemee waxtaanee ci anam bii may partagé xam-xam di joxe naan aaya sàngam boo ko defee am nangam ñun xam-xam diisul ci ñun. ñun xam-xam diisul ñun feesul sunu bët bi lu waay di jommalee ci biir biiri néeg boo demee Saalum da ngay gis xale bu koy doxantoo ci mbedd. kon Equivox bu nekkee bu nekkee équipe boo xam ne danoo bokk ca Saalum man maa ngi waxee fi ma war a waxee nag fi ma daan waxee yëpp. fii nag laa war a waxee Equivox su nekk na ndax fa nu dëkk laa dëkk kon lu may partagé ti ci xam-xam wala ma bëgg wax ak waa réew mi dama leen di woo ñu ñëw ma wax ak ñoom ndax ci wàllu xam-xam bi nga xam ne borom bi sama pap moo ma doon wax ne ma euh, lii ngeen di def wërsëgu làmmañ la bu la ko yàlla dénkee dal partagé ndax man sëñ Mansour borom daara ji moo defee samay mbir sëñ Babacar te man wallahi lancim Equivox su ku ne mën na cee wax waaye bu ma ci waxee a tàkk billahi lazi laa ilaaha illaa huwa ndax ndax man ki fëgg sama bopp ku mu fëgg sa bopp ndax man sëñ Mansour ne ma doom ma ne naam mu ne ma danoonu toll benn jamono ku sant si ku sant ay dara ku sant Mbàkke ku am soxla dalay woo jooju wax nag bu doxee ba Equivox su ñëw ñeneen ak ñeneen di ñëw ci kër gi ah sëñ kër sa ñëw bii doo ko réccu loolu moom maa la ko wax te Equivox su du ko réccu rawatina ñu bokk deret buñ demoon buñ métti na buñ takkee caméra yi mën nañoo bokk oto ma ak ñoom. man moom bawol laay aw ngeen Saalum. yow bool nga aw waaye bool nga dem na ba fi mu toll mën na bu bu yoonu Saalum wi na mais xat mën na ànd ak yow dem bool. kon yàlla na yàlla def jàmm suñu caméraman it ah El Hadj ñoo ngi lay ñaanal Diouf yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla na yàlla defal leen tawfiix ak mboolem équipe bi ngeen ci ànd ak ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm te naan leen waaxiru dahwaana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf